salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk jullit yi ak mbokku taalibe yi fi teew yépp di te du tibb bu weex ci kàddu ñu fi ndara yëkkati suñu kanamu kilifa yi xanaa dey ko daa doon lu mënta ñàkk rekk bismillah sëriñ Saliou nag defe naa ni suñu ko tuddee mag ak ndaw ñépp xam nañu sëriñ saaliw moom it la jiitu woon ci ay kilifaam rekk a nekk ci moom mi ngi feeñee jamono njaareem ca 1915 la feeñ jamono ci waajuram bu sell wa di cheikh di cheikhul xaddim ak soxna faatu jaxate moom sëriñ moodu soxna sëriñ moodu astu mi nga xam ne jabootam gépp sëriñ Touba la ko joxoon mu di soxna faatu soxna mareem sëriñ Hamsatu ak sëriñ Abdourahman soxna faatu Diakhaté itam nekkoon na borom taxawaay bu am solo boroom taxawaay bu rëy bi mu feeñee jamono moom sëriñ Saliou ci 1915 ba 1927 muy diir bu gàtt ci la nekk ak Cheikhu Khadim mu dalal ko alxuraan ba noppi ba mu waree jàngi mu jox ko sëriñ Alassane Jaxate moo ko jàngal waaye ginnaaw bi fi waajuram bu sell ba bàyyi ko itam nekkoon na tundal ginnaaw ba itam nekkoon na mbaakool mu di ko xam ne itam moom sëriñ Saaliw ci Abdoulaye Jaxate waxoon na ni ki xeetali mbindéef yi mooy sëriñ Saaliw yaa man yashawi indahu bi dinaay wal nazar yaa ndiiru sëriñ tuuba xàmmewoo ab dërëm xàmmewoo itam xànjar yaay koo xam ne it xalifatun rafaal islaamu raayatahu rafan bi tafaatal xurxaanu wa subaaru tey jii alxuraan ak i saaram yaa ko yëkkati tey jii ba ñépp seen ko ca kaw waaye moo koo xam ne it sëriñ Saalif xalifatun jazabal mawbal xuluba lahoo yasbal bihat xaajatahoo wal wazaroo yàlla bind ci xol yi ne bëgg leen sëriñ Saalif waaye ba ñu ko bëggee it lu mu leen jowul fajub aajo kase man habahoo jinna wal ablahoo wal bashar mooy nit ñi dañu ko bëgg jinne yi dañu ko bëgg malaayka yi dañu ko bëgg ka annahoo rahmatul muxtaadu taaxatuna xiyaaju wajibatun wasuwal hidam dafa mel ni sëriñ saalu bi ko yàlla di wàcce jamono da di dagg ci yërmande mu def ko kado sànni ko jaam ñi ngir yërmandeem mooy koo xam ne it yaa man yaa man a xalax tabbil xurxaan mustayahidda yaa mantuwaa bi bilal surtun wa jalat sëriñ saaliw yaa di koo xam ni sa jikko moo di alxuraan yaay yar nit ba mu ne cooc te doo ko doo doo ko gëdd waaye nan la daan yaree nit yi te di leen defar mooy di leen yeggee sa suñu boroom subhaanahu wa taala boo déggee bu ñu tuddee sëriñ saaliw tudd cant da daan digle cant tey digle muñ ci musiba yi dal ci suñu kaw mu nekk koo xam ne itam ku mu waroon a topp rekk topp na la ci njabootu sëriñ Touba sëriñ bu mag bi daan na wax ni sama dooma ba ku nekk ci ñoom daan naan ko nee ma ñoo bokk baay moo doonoon koo xam ni yor jikko bu sell yor taxawaay bu kawe moom sëriñ Saliou mu di koo xam ne it moom it fi magam yi jaar rek la jaar wutu sëriñ bi toog jataay ba waaye feesee ko dell mu di fukki at ak juróom yoo xam ne toog na ko ci xalif sëriñ Touba mooy 90 ba set du sori loolu yoo xam ne njëkk mu doon xalif itam da daan sanc ay dëkk di taxawal boo nee sëriñ Saliou ni boroom Ngoot boo nee sëriñ Saliou ni boroom Xabbaan boo ne sëriñ Saliou ni borom jurul borom jàppandal borom jannatul mahwa borom xelkom jaaga ak yeneen ak yeneen te dudd ko ci jamono ju méttee métti jamono ju jafe-jafe nekkoon koo xam ni dund xasida ak alxuraan moo doon mbiram xasida yi ndongo yi daan jàng moo ko daan bind ca loxoom ba noppi di topp jàng ba mooy koo xam ne itam xoolal xel li fa nekk ci ay daara tolloon ci fukki daara ak juróom kenn du yelwaani kenn du xiif moo leen di faj di leen wodd zul in shitta fi ndookaa wa fi njuróorin aw fi amaakin uxra misla xel mu ni it bu la neexee seetal bërëb yu la neex xool xel ñaata toni ceeb lañu daan dundee te kenn du yalwaani ci sëriñ Saliou ba islaam sosoo ba léegi ci moom lañu mësa a déggee fukki junneex ñaar ci dongaay laxasaay la bàyyi ci yoonu lislaam itam ñaata imam la formé ñaata boroom xam-xam la defar boole koog nag liggéeyal sëriñ Touba soo ñëwee Touba sëriñ Saliou moo defaraat jumaa ji defaraat barabu sëriñ Touba yokkaat mbedd yi dolliwaat titre foncier dëkk bi ba mu demee ba xam ni itam dina ñibbi aljana ak fi mu tolloon ci ay at jëloot jëlaat fukki milliards ni maa ko def ci liggéeyu jumaa ji nekkoon ko xam ni itam ku dëdd woon àdduna la foo ko mosaan di gis yëg yàlla boo déggee ay kàddu goom dolli ko loo gën a jaxasoo ak moom leeru suñu boroom gën a tàbbi sa kaw da fanaanoo guddi gi yépp dinaa fi la bu noppee dinaan maa yërëm maa yërëm mbindéef ku dul yàlla suñu boroom maa la ëpp yërmaane ci mbindéef boole koog di dékku balaa yi ak musiba yi war a wàcc di wàcc ci kawam di seey ci jëmmam ju sell ja bu xëyee ne nañu sàkk sara nañu tuubante nañu balante ak nañu dellu ci suñu boroom subhanahu wa taala daan na wax naan lu dul lislaam awma ci defar awma ci yàq bëgg sëriñ Tuuba ba boo ko tuddee mu sotti ay xéewal bëgg mag ña Cheikh Ibrahima Fall Cheikh mag Manumbe mag ñu baax ña ba koo ci tudd rekk mu tuur ay xéewal waaye li alxuraan di wax na wama hasbadu wama hasbudu rabbuka xataa yaxinikal yaxin na jaamu yàlla ba ba ngay ñibbi ci suñu boroom loolu yaa ngi koy jàngee ci sëriñ Saaliw bi muy ñibbi aljana jël loxoob sëriñ Saliou Touré teg ko ci dënnam daf ne ko am naa juróom-ñeent fukki at sama dund yépp jox naa ko suñu boroom moo tax keroog bi mu fiy bàyyi ko dafa am benn kàddu gu ne dafa dégg kàddu gu yuuxu ci kaw daj mulku ax malaku ma ni googu kàddu gu mu muni lislaam lislaam nee na kennook dikkam ga moo màgg muy sëriñ saaliw kàddu gi ko bamtuwaat muy alxuraan alxuraan nee na ki ko daan jàng di ko jàngale moo fi nekkatul yërmandeem tolloon na ci mu ne bu ñu àndee ma dox jiitu leen bu ma leen jiitoo it néeg leen bu ma leen xaare xaar gisuma leen ma wàññeeku bu ma ñëwee fekk ngeen dem itam ma topp leen waaye duñ mës a tàkkalikoo mukk moo ñu daan digal itam naan doomu aadama bu doomu aadama bu nekk ñaari biir la am biiru boppam ak biiru bàmmeelam sa biiru bopp yàlla suñu boroom ma ko sàkk la ca war a def dina ko ca def waaye sa biir bàmmeel la ca war a def yaa ko cay def boo ko ca deful doo ko ca fekk kon na leen yitteel boo ko doon seet mooy Serigne Mbacke Bousso ci chariyan waaye ci Pastef mooy Cheikh Ibrahima Fall ci doxin bëri yërmaale lool bëgg gone lool xajoo ndaw yépp li ñu bëgg ci nit yi ñu mel ni sëriñ Saaliw moo ko defar ci ñun jàngal la ba nga xam sa diine jàngal la ba nga yeewu sa jamono jàngal la ba nga mën sa liggéey te doo ca yàq te loo am mën koo bokk ak nit yi ba noppi boole ci taalibe sëriñ Saaliw tey moo tax ñu naan cant sëriñ Saaliw moo tax tey jii xasida yi di jolli sëriñ Saaliw moo tax tey jii nit yi xam sëriñ Touba moo ñu dimbali ñun ndaw ñi xoolal xel kom matlabul xidma bu xadimu mahan xel kom moo di bërëb ba nga xam ni dañu fay sàkkoo ngërëmu yàlla nekkoon jaamukatu yàlla boo xam ne ku ko mës a xam xam ni parcours am la daawul taxaw salaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan yàlla yàlla suñu boroom taax ñu ci baaxeem te yokk ay leeram Mbàkke baal la jërëjëf sëriñ Saliou jërë ngeen jëf soxna Fatmata ak soxna Jaara sant nañ bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi ngeen xam ne def nañ ko mu laaj gëstu nag wax dëgg yàlla ngeen sonn ci lool ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen wax ni wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ci liggéey bi lool ndax ñu ngi nekk ci école bi jàng waaye yàkkalu leen dara seen pëseef ak seen bëgg sëriñ bi kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal saa borom defal leen tawfeex ak taysiir guddal seen fan ba lépp loo xam ne ah, yéene nañ ko ci liggéey sëriñ bi sëriñ bi defal leen ko kon gannaaw la rek dañuy daal di jox Serigne Saliou ndax comme dañ ko waxoon heure ñu buñ jullee timis te daanaka yegg si na si jotaay bi bu ko defee ñu tuubal kuréel yi rek ñu may ñu rek ñu yeggal incha allah bu noppee rek ñu daal di yëngal kuréel kon lu ñuy sàkkawaat rek mooy mbooloo ni teew bu baax teewlu déglu bu baax a baax waxtaan bi nga xam ne. bëgg nañ ko waxtaan tey muy thème bu ama ama am solo kon ñu ngay sàpp rek ñu teewlu baax a baax daal di déglu waxtaan bu baax a baax kon seen Saliou mën naa jege si moom Cheikh Mbacke xasaay ñuy wax ni vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy jël ñu ngi jàll ci bi di waa Tawfekh Production ñu jëloon ci suba yëpp dugal nañ ko ci ci ci ci YouTube bi